Allahu akbar ay bàyyi laay yow la yàlla tànn ci biir bàyyi laay rekk ay bàyyi laay sallallahu alayhi wa sallam ku dul bàyyi laay sallallahu alayhi wa sallam alladhi abda ilaya tawrabi wa adamu bayna alma'i wa tidini سالي سخد بالوجود الذي أبدى ولاية ربي وأدم بين الماء والتين شيخ الدين بالوجود

خاطر جاء للوافدين وما أولي الهوائج من أف ومن بيد شهدين الخطب الوجود آيات مقتاري من مدار ميسر سريراتي مي برهان حياتي شقتي الخط والوجود الذي أبدى ولايته حب الوجود وسحبك الأجر يا قاعد booba adamu baynal ma wal xalifa barke xutbul wujud e eh, talibe seex def leen ni waay hatta la yataw rabbi wa adamu baynal ma iwati talibe seex xutbul wujud wa oh, sahbe kallaga hi ayata بابا آدم بين الماء الخليفة مهدي قطب وجود الذي أتى ولايته ربي وآدم بين الماء والدين لغتك وهو المخائب ذكر في طريقتي دواري الخير في كل غير التوالي في كل الأقايد دوال في كل أقايد لك جاكهم الكرام أصحاب الرسول أرباب الخبول وأهل البحث والنور جاكوا الحمد لله لما حسن كرما هزن ما خسر في سر ومحمول لم يمن يدي ساحي فقد في طريقته يفيد بها بالجاه ياسين لقتك بجاه ياسين آمين بالجاه ياسين لقتك بجاه ياسين آمين بالجاه ياسين ويلي كيبولن كنس نسل فوقين جانجي بچكالا يا لار إن الحسيدة قاسم المريني أبي الفيد الإلهي خليفة أبي أولي وصلى الإله على وحبودي سيدنا والآل وصحبه مشبه البياتين خلف الوجود الذي sama ay ma li gërëm naa lay boromit ti bi maxla mooy bay Sidi Jamil Masafas di bay solo Malick borom daara yi Papa Malick ak Seexu Tijaan maa li gërëm naa lay boromit واسن قلبك لين بيقم لين بي جهسن لين بي جهلن بي زن خلي كندو خليفة بي برو من تيب محنا خليفة يمكن قرنا بي سيدي جميل مصطفى دبي سلو مالك برندار يتبق مالك أفسي قتدان لا ñun tiijaan bëgg nañu mbay ga nañu mbay jo si leen mbay jo leen mbay suñu xali kenn du alifa mbay borom bi tiibi maxna ñun tiijaan bëgg nañu mbay ga nañu mbay waaw jox si nañu mbay jox nañu mbay suñu xali kenn du alifa mbay borom bi tiibi looloo tax innal mu ala loxo ca kaw sopp seen Babacar Si innal mu ala ana sopp ba Abdoulaye Thiaw bay Abdoulaye Thiaw innal mu ala waaw waaw ala mam ala asgër na bay borom

maamu gis ñu la waay gëm nañu la waay Abdoulaye gis ñu la waay gëm nañu la maam li maamu gis ñu la waay gëm nañu la maam li maamu gis ñu la waay gëm Serigne Babacar gis ñu la waay gëm maam li maamu gis ñu la waay gëm Sidi Issa gis ñu la waay gëm Baay Baay Abdoulaye gis ñu la waay gëm Sidi Issa Baay Baay Abdoulaye Thiaw gis ñu la waay gëm ma ne taaliboo mi sar sambal naa ah. waay def leen ni waay ane ali boomi sar samba na ali fa yaay dafa njaay mala yaay dafa njaay yaay dafa njaay ali fa yaay dafa njaay ñun nañu liggéeyal Seydi Fay ñun nañu liggéeyal wala yéen yéen a ngi liggéey wala yéen yéen a ngi liggéey alay la yéen yéen a ngi liggéey alay la yéen yéen a ngi liggéey alay la yéen yéen a ngi liggéey liggéeyal Seydi Mbay yow booy liggéeyal Seydi Mbay bés booy faatu dangay nelaw nelaw yeewoo di waaw taalibe Seex buy faatu dangay nelaw nelaw yeewoo di aljana loxoy ñu màggal Abaaba loxoy ñu màggal Abaaba mbay si mbay si mbay mbay si mbay loxoy ci baaba loxo ci kaw mbay si ngaari si ngaari mbay si ngaari si ngaari mbay si ngaari si ngaari لقينا مكة الخليفة لقينا مكة الخليفة بل من البسيط هديل كامل خليفة يا يا بنجاي

ndox maa ngi bawaan fa la jëm waaye ku def ni yàlla nga forooti waay waaye def leen ñu waay kooku mooy Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maamam mooy Ismaïl moom moo waraloon teenu sam-sam yaay di tëral ko fa waaye ku def nii yàlla nga ndox maa ngi bawal fa jëm si wàllu nekk baam fu mu jëm dama bëgg waa saal bi yéen ñëpp ñu àndandoo ñu way way ndox maa ngi bawal fa jëm si wàllu nekk baam fu mu jëm xam naa fi ne leer teg si suuf balu ndaxam baaw di tëltële xaw ni géej di melmele hajara naa saa nekk bale wooy bu kama bee

حب الخالق حب الخالق بين المشرق بين المشرق والمغرب ميسر والمغرب ميسر أعرف راسك بينكو كسر ميسر كسر يوني نجم دولي يا يرخي لا فقير yónnee nañu ndaw ne yaa doon Maodo si yónnee nañu ndaw ne yaa doon Maodo si daanga borom jamono bi daanga seede leen loolo Seydi Aboubacar daanga seede leen loolo man mbay naari ne nañu waaw fuute ne nañu bokk wolof bay daan seede leen loolo bay daan de nañu baalu kumba de nañu boolo wolof de bay daan seede leen loolo ñi ngi naan kililin kalala ko dem bay daan seccen kaala ko dem bay daan kililin kalala ko dem bay daan seccen kaala ko dem bay daan kililin kalala ko dem bay daan seccen kaala ko dem bay daan కెలిలికలకుడమా సచంకాలకుడమా సచలవి చంకాలకు వావ్ సింగాపూర్ దాన్గా సెడ్డిలి లోలో సింగాపూర్ దాన్గా సెడ్డిలి సింగాపూర్ దాన్గా సెడ్డిలి లోలో دوفي في وعيك كان كي ما خاف بربو أم ويا الماء المنتخب waxkat yuri noppi leen seeni bët du gis te jàngu leen wurus ñu boole leen barke baadi Mustafa pambawahna wah budager deluwah luhar denugar umnalam bangir manahwai di ala difallilah yalla yalla may daraja waikat yu magi yi jang ja mama dooye baram yalna yal na yàlla may daraja yu magi yi jang ja mama dooye baram waaw ñu ngi jéggalu dañoo bëgg ñëpp aaw rek li ñuy wax te yàlla tax ndax ku ne xam na ni ñun ay doomu yoof leen rawatina suñu mag woote suñu xarit mu waaw du ko ñaanal daal fi mu teg bëtam moo ko xam yàlla na ko ko fo yàlla eggale barke maam Serafal ndax ñun moom ay Baay Faal lañ ku ñu yëg rek moo nu sonal war na sëñ tubaa te moom dañoo yëg daa yëg daal dañ koy ñaan jàmm rek yéen ñëpp def leen laa ilaaha laa ilaaha laa fi duudu maxtaar yàlla buur bee nu ngi ñaan la ilaha illallah yàggal fi duudu maxtaar la yéen ñëpp def leen ni la ilaha yàlla buur bee noo ngi lay ñaan la ilaha illallah bur yàlla yàggal fi duudu maxtaar laay ku ko sopp defal ni la ilaha la إلا لا إلا لا لا إله إلا الله بري الله يقل في دود مختار لا جل كماله لا إله لا إلا لا إلا لا لا إله إلا الله يلا يا قلب شدود مغدالا لا نمي ويان سن فالولاني ويان ثم نمي دقان borom xayra la nuy dagaan billaay lay lay la la lay lay la la lay lay la la ci muhammadu nabiya rasulullah lay lay la la bu nu nammee wayaat Sëriñ Fallu la wayaat suñu nammee dagaan Murtala la ni billaay lay lay ba nu doonee bay faal la tuumay jublu lu réer si kër ñu jiñ ko bay faal be lay lay la faal nun ba nu doonee bay faal la tuumay jublu lu réer si kër ge ñu jiñ ko bay faal be lay lay la la faal ñu mënu tere man de tere noo taxawaalu ay galas Mbàkke yaa nu yërëmoo bilaay لا إله إلا لا بل شي محمد نبي يا رسول الله واو شي محمد نبي يا رسول الله تي محمد نبي يا رسول الله يا باي مرتلا ابن ما فالولا Baay Faal Baay Faal moo la gën ku dul Baay Faal Baay Faal raw na la ku dul Baay Faal Baay Faal moo la gën ku dul Baay Faal Baay Faal raw na la ku bañ Baay Faal Baay Faal dala gën ku dul Baay Faal Baay Faal raw na la ku dul Baay Faal Baay Faal moo la gën ku dul Baay Faal Baay Faal raw na la man moo tax ma jóg di wax si Faal yaa man gerte naa ñu naan Faal tax ma jóg di segam da nga umpale Baay Faal ba segam da nga umpale Baay Faal bi la buy Baay Faal bi ñii ñi ngi jóg di wax si Baay Faal yi ñii ñi ngi xëy di ñaan Baay na ñu yàq deru Baay Faal yi ba noppi si mbubu Baay Faal bi am na ñu yàq deru Baay Faal du tux du naan foonantu bari fu la lool te am yërmande bay faal du tux du naan foo naan du bari fulla te am yërmande bay faal na fay maandu te am teraanga xool ba rafet lool mu doon jàmbaar ja ñàkk yar ñàkk ngor dox di tooñaate bokkul si Baay Faal gaa yi xam leen ko wattu ay kon solub kap du Baay Faal bi wàcce tubay takkub ceen du Baay Faal be wattu ay kon solub kap du Baay Faal be wàcce tubay takkub ceen du Baay Faal bi waajoo fi gis mu naa ah, la man Baay Faal la seetlul na muy doxe xam ni Baay Faal la Baay da ngay set da ngay selwiise fonku sab sëriñ yow jàmbaare Baay Faal da ngay set te da ngay sel wiisa fonku sab sëriñ yow jàmbaare def lu bon wax lu bon xeebaate bokkul ci yoon wee yi xam leen ko def lu bon wax lu bon xeebaate bokkul ci Baay Faal gaa xam leen ko bu sëñ bi joxe ndigal nga naan ma fekk leen fa bokkul ci Baay Faal gaay yi xam leen ko bu sëriñ bi wootee nga naan gaay yi maa ngi ñëw bokkul ci yoon wee gaay yi xam leen ko billaay Baay Faal be jaamu Yàlla la Baay Faal be jaamu Yàlla la Baay Faal be alalu Yàlla la ñun alalu yàlla la ñun alalu yàlla la allahu akbar ay baay laay yow la yàlla tànn ci biir baay laay rek ay baay laay sallallahu alayhi wa sallam ku dul baay laay sallallahu